السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دلنا نيو نك تورو سرين توبا الشيخ محمد المنتخا يالنا في يقلول تاندكو غير نيو لين تورو الشيخ محمد البشير ميغا خامني مو جيتي كوميتي دورغانيساسيون بو ماغل توبا وايت مو يوري كادو خليسال دي موريت نيو لين تام تي تورو سرين الشيخ عبد الله مباكي غاينه فاطمه ميغا خامني مو يور بانخاسو كومونيكاسيون اك كولتور نيو لين تي تورو سرين مودو مباكي سي ميغا خامني مو نيك تي بوب كاروان بي دي جورنجي ak turu sëriñ xaali jaxate ak mbooleem ñi ñu ko seqal ñëpp euh, sëñ euh, bu ma déggee sa laaj mooy karawaan màggalu Touba loolu ñi ngi ko sosoon ci atum 2012 loolu li ko sëriñ Touba Cheikh Sidi Mokhtar tudde woon mooy dekkalaat taal yi ak fenqalewaat gilin yi loolu moo taxoon ñu dem di gëstu di fi sëriñ Touba relation bi amoon diggante sëriñ Touba ak këri diine yi waaye di dem ci dëkk yoo xam ne it seexi sëriñ Touba yi ñoo fa nekkoon di dem ci dëkk yoo xam ne am na jeexitali Serigne Touba loolu moo taxoon ñu tàmbali ko 2012 euh, yaakaar naa ne ñi ngi ko tàmbalee woon fii ci Touba euh, waaye wuuti Njaañ wuuti Louga noonu lañ ko defan ba dem Ndar jóge fa dem Murtani jaar nañ penku bi dem maatam dem nañ ba dem euh, Gelor dem nañ dem nañ dëkk yu bëree bëri ci dëkki Fuuta yi biñ fi jógee it aw nañ Saalum dem dëkk yu bëri ci dëkki Saalum yi aw nañ bawal dem nañ dëkk yu bari ci bawal ak kajoor ba yàlla dogal ne 2016 la loolu jeex ndax juróomi at lañ ko natte woon na moom lañ koy def bi mu jeexee ci juróomi at yooyu Cheikh Mouhamadul Bachir andi na ci lim résultat bi nga xam ne jur na ko benn rek ma andi ko ci mooy dem nañ ci dëkk boo xam ne ci boori ñiibi dañ fa fekk njabootu Cheikh Sidi Hassi Malick te damay wax toujours ne euh, maam Mati Mbacke maam ma xarama ko jur mu jur maam Ousmane mu jur alaaji Malick maam Balla Aysa maam Bana maam Maharama ko jur mu jër sëñ Mbàkke Mor Anta Sali mu jur sëriñ Touba kon loolu benn famille la soo delluwaatee ci dëkk yi ñuy bëgg a dem sëñ moor Xari si ak sëriñ Malick Basin si seen baay ba Maxtaar Penda ak Ousmane mi jur alaaji Malick ñoo bokk tafsir Demba Bunna kon dañuy fekk ne diine ji benn loolu la kon waxtasimoo bi abdillahi jamian wala tafarraxu ak innamal muminuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum loolu moo dox ci diggante yoonu mu murid ak tariixa yëpp euh, Sëriñ Tuubaa it jàngal ñu loolu loolu moo taxoon juróomi at yooyu bi mu jeexee ñu andi nag ixtifaa ala asari cheikh te loolu mooy xeñtu jeexitali Sëriñ Tuubaa yi loolu daaw lañ ko tàmbali biñ ko tàmbalee daaw euh, dañ koy def at mu ne dañ koy ubbee ci benn buntu kër doomi Sëñ Tuubaa su noppee ñu wane benn seexub Sëñ Tuubaa wane rakki Sëñ Tuubaa wane waale itam alaaq bi am ci diggante sëñ Tuubaa ak yeneen këri diine yi daaw ñu ubbeeku kat Cheikh Mahamadou Moustapha al Karim ñu yabal ñu tindoo di muy xusnul maab eh, ba ñu fa demee gis nañ ne lu ëpp ci doomi Serigne Touba yi foofa la leen sëñ Moudou Moustapha yore woon ñu dafay jàng eh, gis nañ fa jeexital yu bari bi sëñ Touba digalee sëñ Moudou Moustapha ak sëñ Fallou ñu sanc ab dëkk bi sëñ Moudou Moustapha jógee Touba garab gam njëkk a toog nga xam ne fi la waxee ne fii mooy dëkk ba euh, gis ngeen ne sëñ Cheikh Aliou jumaa ju rëy jëm fa def ak taraanga yem def ak la fa nekk ci ak leeral lépp ba ñu fa jógee euh, muy daaw ci lañ daal di nag dugg euh, ci réew mi xam ngeen ne dem ci kër seexi sëñ Touba yi noonu lañ demee woon Gédé kër sëñ Mbacke Bousso bu ñuy tudd mbokki sëñ Touba yi kenn du ci gën a jege sëñ Mbacke Bousso bi loolu jeexee ren ñu dàkkaat ne kon dañ koy ubbee buntu kër Cheikh Mouhamadul Fadal nga xam ne Euh, ndindi incha allahu rabbi la ñuy tànn ci doomi sëñ Tuubaa yi euh, loolu euh, àllarba lay doon incha allahu rabbi nga xam ne kër sëñ Fallou la ñuy dem jokkoon nañ ci ak sëriñ Abdul Fatah même mi nga xam ne moo yore kaddu kër sëñ Fallou gépp ba noppi nag dëkkeen ndindi mu boole ñu ak doomam sëriñ Xaadim ba ñu ngi waajal loolu tey nag dañoo bëgg bu ñu jógee fii ci Cheikh Mamadou Bachir la ñuy jaar mu ñaanal ñu dénkuñu ñu daal di wuti nag Jolof bu ñu Jolof bu ñu ko tuddee caameen lañ jëm kenn nattable ne Masamba Caam moo jàngal maam Maharam te Masamba Caam nitug diine la kilifa la loolu fi nga xam ne fi la yoonu mu jànge jaatu nañu wanewaat ko jokkoon nañ ci ak ña fa nekk di eh, Serigne Cheikh Jorel jàkkoon nañ ci it ak Ahmed Eyane Thiam mi nga xam ne moo doon defar barab ba tamit mbokkam ba foofu lañ war a jëm suñu fa jógee danañ dem Afe Jolof Afe itam ku ko tudd sam xel dana dem ci Ahmadou Makhtar Niang mi nga xam ne maam Mahara may maamam moom lañ tuddee it sëñ aafe mi topp ci maam Cheikh Anta foofu danañ fa dem fale itam maam Mati Mbàkke mi jur soxna Awa Boussa maam Mati Ñang mi jur soxna Awa Boussa foofee la nekk kon loolu day teg si la ne ndax foofa la bokk bu ñu fa jógee danañu dem kër tafsir Demba Buna kër tafsir Demba Buna mooy kër gi nga xam ne moo lëkkale Ceyeen gépp nag moo xam muy Ceyeenug Siyeenug Tiwaawan mooy xam Siyeenug Tuba ak fu Siyeen mën a ne rek li leen lëkkale mooy tafsir demb bu ne foofa la ñuy dem incha allahu rabbi buñ fa jógee nag danañ ko tëjee si ci barabu maam Maharam Mbacke bi nga xam ne moo nekk ci Mbacke Jolof loolu daal mooy li nga xam ne mooy euh, programme bi ñi ñaan nag ñu ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin di sant mbooleem organe presse yi nga xam ne ñi ngi ànd ñun ci at mu ñu def ko at mu jot ñuy gis ak yokkute di gis ay résultats yoo xamante ne bii day gën leer di ñaanalaat Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi yàlla te doole ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci weeru tedd wi ñuy dëgmal ci di weeru safar ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne tey moo fi jëmi sëriñ Touba tey ci kaw suuf ñuy ñaan suñu boroom mu yàggal ko fi lool tam ànd ak wér di ñaanal itam ki nga xam ne ndegeen daaw moom la fi wutu muy Cheikh Sidi Moukhtar suñu borom doole ay leeram te ci barkeem di. nuyu bokk taalibe yi fi teew yëpp ci njiitale sëriñ Modou Mbacké si mi nga xam ne liggéey bii ci loxom la nekk moo di ko doxal ànd ko ñu ko àndal ñëpp muy sëriñ Xaali Jaxate ak sëriñ Fallou Gala Sylla ak mboolem bokk taalibe yëpp di leen ji soññ rek ñu yeesal ndigal li ndax ni ko sëriñ bi waxee ndax ab taalibe moom lu muy def rek faaw mu jot ci ndigal te liggéey bi ngeen doon def itam am na ay nataay yu bari yoo xam ne ñëpp gis nañ ko. kon nag li ci ëpp solo rek ñooy mooy yéen ñiy dem fu ngeen dem rek xam ne da faa dem ci turu yoon wi ci turu sëriñ bi mu nekk fa it ambassadeur sëriñ Touba wan faa wane it loo xam ne ku leen gis dana xemeem yoon wi ndax weesuwut jokk bokku lislaam gi ni ko alxuraan santaane xeeñtu it jeexiti sëriñ Touba yi loolu mooy jéego bi nga xam ne yéen a koy def kon ñu leen ci sant di leen ci gërëm bu baax di ñaan itam liggéey bi ngeen tàmbali ko ci bisimilahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ngeen yàgg koo def itam te day jëte tawféex day cee gën ngërëmu Sëriñ Tuubaa eh, liggéey bi itam ñëpp gën cee góorgóor te am ci pastéef te xam ne liggéey bu rëy la boo xam ne li ñuy wax ay futuxaat ci la bokk ndax ku xamutoon mbirum sëriñ bi nga fexe ba gindi ko ci ba xam sëriñ bi ndax sëriñ bi moom ku ko xam rek sopp ko bëgg ko te ku da ngay jëriñoo kon nag loolu dañu amoon ci kàddu yu ñu leen wax li ci des moom xam naa bu ngeen demee ba ci biir liggéey bi rek danañ ko ànd ak yéen di leen jotle wala itam ndigal lu ñu dab léegi muy loo xam ne dañoo waroon woote ngir jotle ko taalibe yi far ndigal li ak siwaat muy Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu fi Serigne Touba eh, jox na ndigal taalibe yëpp ku ko man ci tooli xel koom ya nga dem fa liggéey fi Sëriñ Tuubaa barkeelu ca ndax xam na ne tool bi tool bi wari xel koom euh, Sëriñ Saliou liggéeyal Sëriñ Tuubaa la ko defoon bokk ci lim daa tànn mu gën koo ñëw ci liggéey Sëriñ Tuubaa Sëriñ Cheikh itam euh, yàlla def na euh, bi mu koy tàmbali yónnee na coom ndigal laaj ko mu jox ko ci digal kon nag moom nee na mi ngi soñu taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp képp koo xam ne mën nga ko rek nga dem fa ànd moom ci liggéey boobee sàkk fa ngërëmul yàlla sakk fa ngërëmu Sëriñ Tuubaa wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala